baax a baax euh, Cheikh Diop ci li ñu faram fàcceel donc euh, euh, xëtu xëtu xëtu xëtu yi. <laughs> ma dem ma dem ma dem ban ñëwal ci peut-être bi nga xamante ni mooy ci wàllu déclaration de patrimoine voilà bu bu Diomaye voilà voilà oh, le président passe à l'acte comme nu ñu ko waxee par rapport un peu à. Euh, la déclaration de de patrimoine Bassirou Diomaye Faye euh, conseil constitutionnel euh, donc fësal nañu ko daanaka dugg na sax ci journal officiel am na benn journal bu ne le président Bassirou Diomaye Faye est pauvre mais riche en même temps donc voilà. Malick déclaration de mhm. bu président de la république. Euh, dafa dëppoo ak euh, li nga xam ne mooy charte ndey réew mi mhm. euh, ci article 37 de la constitution mhm. dañu wax ni obligatoirement maanaam ci lu mënul ñàkk président bu ñu la falee da ngaa war a dem ca kanamu conseil constitutionnel yóbbu fa li nga xam ne moo di sag moomeel ba ñu xam lan nga am loolu nag ah président Bassirou Diomaye Diakhar fay dem na fa ca conseil constitutionnel bind na leen Euh, président euh, Badio Camara recevoir na ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les membres du conseil constitutionnel saytu nañu ko génn ko ci journal officiel donc man je pense que loolu moom c'est dans l'ordre normal des choses te bokk na ci li nga xam ni ay gage de transparence la ci doxalinu réew mi euh, président bu nga xam ne dafa riche waaye dafa pauvre loolu moom xaw na doy waar ndax tey li nga xam ne mooy moomeelu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Euh, day moomeel gu nga xamante ni ni ci liggéeyam la ñu jàpp ni ci la ko amee ndax moom inspecteur des impôts et domaines la donc li nga xam ni moom la wax ni moom la am ci alal euh, boo ko xoolee ba ca biir lu lu jaadu la pour un inspecteur euh, des impôts et domaines man yaakaar naa ni xëy na ci inspecteur des impôts et domaines yi gën a pauvre la bokk ah. wax dëgg yàlla parce que bu ñu demee ba nga xam ne banques yi sax da nga leen a ameel mais ci say moomeel bu ñu xoolee ci wàllu suuf ci wàllu euh, dëkkuwaay euh, oto sax benn la ci am. benn kër benn oto. benn kër benn oto donc loolu dafay wane ni rek c'est un sénégalais comme man comme na ba bu nga xam ne ci liggéeyam ñàkk na ba am lu nga xamante ni denc na ko suñu dund mooy ñun dem ci banque yi lépp pour su suñu yenn problème yi donc loolu moom la def man je pense que amul lu nga xamante ni ni tey war nañ ci nekk sax di épiloguer am na ñuy wax ne defoon na déclaration de patrimoine bu nga xam ne gisoon nañ ca borob 10 millions waaye gisaatuñ ko ci biir loolu ah, ay détails ah ndax fayu ko ah. et puis aussi la nga xam ne moom la waxoon ca campagne ba mm-hmm. loolu moom la ko concerné loolu loolu kenn tenir ko en li nga xam ne moo officiel mooy moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mm-hmm. bind na conseil constitutionnel ni leen maa ngi waat ci honneur ni lii ma leen di wax dara dañu ci mooy dëgg lii mooy sama moomeel mm-hmm. jébbal leen ko wax leen li mu moom loolu nag ñu publier ko sénégalais bu nekk gis nga ko kenn ku ci nekk yaa xam nag ban xalaat nga ci am mais pour man c'est dans l'ordre normal des choses ñi ci des nañ ko topp déclaration de patrimoine euh, donc bu Bassirou Diomaye Faye Bassirou finalement poids plume déedéet ba bon déclaration patrimoine bu président de en tout cas ci état actuel bi nii man gisuma sax important am. Hmm. parce que bu fekkente ni yow dañ ne booy dugg. nga wax maanaam le président Bassirou Diomaye Faye wax na lim am. mi ngi ñu publier ci journal officiel mu confirme ak article 37 comme ni ko Malick waxee président nouvellement élu di nga def sa déclaration écrite jox ko conseil constitutionnel. mu rendre ko public. ni euh, naan sow wat parce que après su jeexalee moom. du ko defaat donc duñ xam moom lan moo yokk ci. c'est-à-dire que moom bu paree du du defaat sorti waaw contrairement ak xëy na kaaw ñi nga xamante ñoo nekk fële ci off nag nga xam ne booy dugg da ngay wax li nga am. sooy génn da ngay wax li nga am. boo jëlee kaaw ñi ko fi jiit Macky Sall moo ci mujj mën nañoo jël ka am. ba mu dugg wax na lii la am ba gars yi sax gis nga ko juróon na fi vol polémique son patrimoine mais bi mu dem dem na yoonam. jiite na Sénégal 12 ans xamul lan moo yokk ci patrimoine am. donc pour man bu ñu bëggee mbiram transparence wala ci wàll woowu il faut loi bi ñu xoolaat ko rawatina li nga xam ne mooy constitution bi président de la république à à l'entrée comme à la sortie muy def sa déclaration de patrimoine si lañ mën a juger sénégalais yi lan moo yokk. ci li nga xamante ni moom moo moom la am ci wàllu patrimoine sinon ça n'a aucun sens ci di di ko def boo jëlee beneen cas bi tamit mooy même ministre yi nga xamante ni ak DG yi ñun tuddee les assujettis yi ñu war a dem ca fële nga xamante mooy OFNAC dafa seen déclaration de patrimoine ñoom it c'est la même chose parce que bu président moom mi ngi koy rendre public mm. ñeneen ñi seen bos doo leen ko rendre public alors président mooy kilifa ñëpp donc y' a y' a beaucoup de paradoxe ci li nga xamante ni mooy ni ni xeexee guerre ci texte yi fii ci Sénégal ba nga xamante ni buñ mënee di publier bu président pourquoi pas ñu jël le directeur le ministre wala keneen fële ci of nag laay wax ñoom it ñu rendre public seen patrimoine parce que moom moo mën a tax quand même mën a xeex li nga xamante ni moom mooy góor gi guerre gi et là foofu la gars yi war a mën a nekkee maintenant nag bu ñëwee ci nga xamante mooy salaire que waaw foofu ñu ngi. Ah, mm-hmm. non non non waaw jege nag moo xëy na lan ca téq xanaa impôt la wala nangam. parce que <laughs> mat <laughs> matu ko donc waaw loolu. Oh, tam xam na ne muy muy beneen parce que boo jëlee programme xam ne retraité ñu jot presque 5 millions. boo demee ba retraité maanaam les anciens chefs d'État am na statut boo xamante ni moo leen mën a may ñu jot 10 millions. maintenant bon président bi affaire fonds ko doon waxee aussi fonds secret yeeg ay xeetu xeetu fonds yooyu tam dafa bari mais malheureusement boolewu ko ci patrimoine am parce que la dernière fois nee na fekkul dara ci li nga xamante ni moom mooy kees gi xëy na loolu aussi beneen cas la boo xamante ni fii ci Sénégal maintenant ci wàllu fonctionnaire lañ yéen a ngi koy wax mais euh, président bi aussi mooy système bi ni wax ci li nga xamante ni mooy yenn catégorie fonctionnaire ni leen système bi favoriser aussi wane wane na ci yéen a ngi naan mooy bi gën a néewal loo ci mën am tamit wane na kër goo xamante ni nee na moo ko moom syndicat beeg ko jox. yow mi syndicat jàngalekat bi nga kii syndicat. non dañoo am coopérative. waaw non du coopérative c'est pas ñoom les inspecteurs des impôts et des domaines dañu am syndicat boo xamante ni fu ñu dagg suuf. am na ay seddoo ko du ay coopérative. loolu yow mi yaa ngi bokk ci syndicat boo xamante ni mënoo ko am greffier yaa ngi nii tey nee na dañuy yëngal mënoon ko am les enseignants la même chose donc loolu aussi maanaam genre kii la quoi inégalité boo xamante ni nemeeku nañ ko ci système boo xamante ni te nee na dañ ko def pour xeex li nga xamante ni moom mooy corruption ba nga xamante ni même ce qu'on appelle les fonds communs te ñoom ñu koy am moom moo tax ñu leen koy jox système bi la loo xam te yàgg na fii ci Sénégal te bon ba léegi sax ce serait bien ñu xam ndax am na benn loi boo xam sa moo fi institué li nga xamante ne mooy euh, ces ces fonds là ba nga xamante ni ce qu'on appelle les régies financières di ci bénéficier wu au détriment d'autres Sénégalais yoo xamante ne bu ne am njàng ëppale leen ko ñoo yam ci wàllu diplôme loolu tax jàngalekat yi ci wàllu grève ak yu ni mel ci wàllu rémunération bi ñu doon xool naka lañ ko mën a yemale fii ci Sénégal suuf si mu fi am yëpp ci nga xamante ni mooy Mermoz noonu la ko amee donc loolu aussi je pense que war nañ ko ci jub jubal jubante googu war nañoo xoolaat naka la ñuy laalee foofu ba nga xamante ni Sénégalais yëpp mën a yem parce que loolu c'est pas prouvé que c'est pas dañ leen jox parce que ñoom dañuy liggéey ci xaalis di ko manipuler moo tax ñu leen defal fonds commun yooyu pour lutter contre la corruption foo dem tamit corruption am na fa partout ci li nga xamante mooy ce système là et je pense que président de la République nga xamante ni ngi nii moo jiite ñëpp di signer contrat moom defaluñ ko loolu li force li nag li nga xamante mooy fonctionnaire et je pense que am na loo xamante ni jën a Dieynaba euh, pour man lii daal euh, nekkul loo xam ne euh, surprise la parce que ñu bëri doon doon nañ ko xaar naam peut-être date bi lañ dul woon xam mais fi mu ñëwee itam Euh, bettul ñu bëri euh, liñ ci mën a wax rek mooy dafa mel ni am na tuuti changement ci euh, candidat bi moom en tant que ba mu nekkee candidat moom Bassirou ay fay ak tey jii bi mu nekk njiitu réew mi ci déclaration bi naam sax ñu bëri ni ñu gis ni jàpp ni bëri na ay bor donte ñu bëri. pour ñoom euh, njiitu réew fi mu toll nii waroo ami bor mais dafa mel ni am na logique par rapport ak euh, la mu waxoon ni kees ga euh, bi ñu ñëwee fekkuñu ci lu bëri dafa mel ni ci logique boobu la ñu demee maanaam tey jii bu ñu ñëwee mu ne am na ay bor sàngam salaire bi itam ñu bëri doon ko xaar mu gën a yokku euh, matul sax juróomi million day mel ni ñu ngi ci logique bi tamit euh, euh, ci peut-être jub waa jub ci peut-être jubal jubanti bi mm-hmm. rest à savoir nag peut-être yenn subvention yi ak indemnité yi bu duggee ndax xam nga yooyu kenn du ko wax mm-hmm. peut-être yooyu bu duggee mën naa gën a duun ak euh, yenn euh, privilège yi ngay am. Mm. peut-être loolu laa xalaat. merci beaucoup euh, Maymouna Cheikh. Mm-hmm. Maymouna mi ngi wax lu soxal salaire yi Dieynaba mais je pense que ki nga xam ne moom la wutu avec mooy que ça président Macky Sall ndax. Euh, bu ñu defee aw taxaw seetlu annuellement donc mu ngi doon percevoir lu toll ci 9 euh, millions 352 mille 378 mille mensuel 779 euh, mille 336 hebdomadaire 179 mille 854 francs CFA lenn ci loo xamante nii donc euh, Dieynaba attiré na peut-être sama attention ak itam attention euh, sénégalais yu bëri moo di déclaration bi nga xam ne amaloon na ko. ci mm. jamono yi ñuy amal campagne électorale bi. ak bii dafa mel nii lu xaw tam méngoo peut-être jamono dox wala soit ñu xam xel ne euh, njiit bu réew bu Sénégal. te yee jamono ak yi peut-être bokkul ba tax ñu natal ko lu jege li nga xam ne moom moo di juróomi million leneen ci loo xamante ne également gisoon naa ko ci gisuma ko muy mbirum suuf ca euh, Sandiara peut-être voilà donc ñu omettre ko wala soit euh, man maa gisul bu bu bu baax en tout cas bëri na ci ay laaj yoo xamante nii euh, donc sénégalais yi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy laaj beneen pàcc bi également on peut comprendre njiit bu réew bu Sénégal également ak ki nga xam ne moom moo di Mame Birame amaana peut-être. bokkul ndax taxawaay yi également donc donc donc donc du benn en tout cas loolu sama sama sama sama sama gis-gis ni ci sénégalais yu bëri yu bëri di eh, gëstoo pour gën a am ay leeral man itam noonu la eh, bëgg gën a am li nga xam ne moom moo di ay leeral sëgëm c'est déjà euh, publié. ci attention de moom bi mën na mën na nëbb li mu yore. Ah. attention. sànjara bi ak peut-être. am na euh, bien sûr waaw c' mi ngi mi ngi ci mooy tool bi voilà c'est ça moom lañ fi amoon moo fi moo fi juróon sax coow. mais bor mm. bor bi kay laa xam ne ko xanaa kay dañu va éponger euh, rapidement. 30 millions entre euh, dans deux banques <laughs> différentes. <laughs> bor moom bor ça ne veut pas dire que da nga pauvre. parce que ñi ñi la gën a riche sax ñoom ñoo am ay da nga koy leb pour régler benn problème ñu la koy dagg nga koy fay ndànk. nga koy fay par ndànk waaye président moom na ko éponger. da koy éponger. président <laughs> parce que am na benn am na benn borom bon article bu intéressant boo xamante ni ñu ngi gis ci Dakar ak di justement sur wàll ñu mm. jàpp sax ne. li nga xamante ni mooy domaine national bi. dafa am loo xam ne daf koy tere ci njënd ak jaayam suuf. te moom mi nga xamante ni mooy président ba Diomaye Faye bu ñu jëlee kaawu Sandiara par exemple. xam fa la am. ñu ne suuf soo xamante moom si lui qui avait porté combat dafa mel li mu doon joxoñ baaraamu tuuma kii di Babacar Ngom moom la def foo xamante ni mooy Sandiara parce que du zone boo xamante ni fa la yeewoo te am fa suuf soo xamante ni donc muy loo xamante ni encore ça. dina fi révélé waat beneen polémique ci wàllu suuf boo xamante ni jur nañu ko mais mais mais lu am solo mu di déclaration patrimoine donc mm. booy sóobu ak itam également booy génn foog naa ne loolu ñoom war nañ ci mën a taxaw bu baax a baax ah exactement. mais constitution bi constitution bi waxut génn booy dugg rek la wax. mais loolu war nañ ci xalaat je veux mm-hmm. merci beaucoup euh, donc euh, euh, ci sujet bi ku ci nekk jox nga ci sa xalaat mu nekk ay xalaat yu am solo. ma ne déclaration de patrimoine jongama Sénégal la. <laughs> gars yi daal seen affaire à boo ko defee gars yi daal seen gémmiñ yow. <laughs> parce que ça c' est affaire à suivre paradoxalement <laughs> donc euh, en tout cas euh, di euh, est ce que ma bor président sax moom mi ngi ci 30 millions. yow kii ah, ay bor yi nga xamante ne ba say sët dañ koy nar a fay. loolu moo xew fii foncier nga yor yow foncier. ah Chérif nee naa ba ma muytu damay wax téléspectateur yi nu ñu lay tuddee en hors antenne bañ maa muytu rek donc voilà. merci beaucoup ah non déedéet man maa ëpp bor président. man de président ma ëpp rek ay bor. te li mu déclaré nii. Euh. bari mu am moom xaajuma am lu du toll boobu wax dëgg yàlla. en tout cas en un clic euh, il peut il peut éponger il peut éponger les dettes de toute façon képp képp sax ki nga xamante ni yaa ngi ci situation boobu yàlla na la ko yàlla euh, donc teggil.